wax bii junj moo tax muy mbooti wi cax tontul te bul ñës ndaxam na ciw xeet ne leen ma déedéet Cheikh Ibra moo weet moo yegg moo sës soone ma waawaaw wan ma ko tem gaaw jënul nga ci ñaaw ma seefu koo gis nee naa la déedéet ku ñëpp ree taxaati mooy toggi boolam di booj ji toolam jébbal boroomam di lekk aw des moo ñu xamal raam moo tee ñu naanaam moo sosu fa kër daam raam jébbalew sas géeju ko cofeelam buutum njëfeelam lamp bu ngëneelam moo tax mu xëy fes yaay leeru baay faal nee naa la baay faal ku mel ni yow faal maseefu koo gis ba ñuy xëccoo xam boobee nga jël ngëm ngëm joxoo la xam-xam ak ngën ji pas-pas ñuy xënte woo yax bu rëy nga xëy fëx ku daada moom yax tey joxoo na lab nos ñuy kaala wuy teen nga ngoy ci teggiin tey ñee padigeen yay bopp buy gis ñuy toppi fóore tafsiiri téere yow jëf nga sóore tin yang fi daawas yaa luqi lañ ci babam ba denc kuy yab sa xanci sayam wa day tas yab xanci sax kay mu takk saw say Cheikh Ibra moo xëy def ñépp ci nos ñépp a ngi lay roy yow mi deñal rëy yow rekk yaa duy bagaan yi nuy gis day laxasaayu sikar di jaayu du jëw du ŋaayoo du geestu kuy xas rot na ci ay déeg feteñ na ay néeg ca tam mu nabiyeeg day ñal gu day gës fanaane xamb zikkar di bëmb bëxëy na lamboo lu kenn dul gis mbootam wilaaya leeru deraaya ngay may sa gaaya yaa fekk ak nos mbootum wilaaya leeru ko diraaya ngay may sagaaya mbootum wilaaya leeru ko diraaya ngay yaa sell ak kajoor nga roofoo bawal nga tuufoo saf fu soofoo yaayaak say was tey gantu ceebo teetil nu ceebu nee naa ajiiboo ku ñëw amu mos moo jekk ab taar ni taaxa muxtaar muuñam manel kaar moo nuy fegal mbas kawar ga def laas mu jekki mustaas te jekk ay faas jëm bayaaras musique gi jonnu teyaatu dënn moo neexu bann leer dëkke nes nes njañam la muy yoor muy jaal la lew góor di biij ci ay buur ñuy boofa kay yës xam-xamu saahir du àtte say mbir yàlla dala ber nga jiitu kuy fés nekkoo ci téere jommal nga fóore ñépp la réere kenn mënu laa sa men ndend seenul sa pënd kenn mësa la xand ca peñ ba ngay gës yaa sar ba jàll yaay ngën di bell yaa gën a sell yaa penk yaa fis yow faal bagaanu leer ya nga naanoo tax sunu daanoo dañ ay garab tis yaay ñagu yoon wi yaay laak ku yoon wi kaaraange yoon wi jeex na ba des yaay lamp yoon wi yaay buntu yoon wi kuy bañ ci yoon wi say mbir du am tus dameel ci ay maam war am ami jaam nga jaay ko jox daam sak pal dafiy des sagaa yi leeraam ñoo gën dagak jaam ku daa ami jaam tey joxoon na lab nos maam Abdoulaye xaar mbaa xaar na daa yaa leen defal taar ak pal gudul rës mbaa yàlla waa ngi kakku si waa ngi pal yaa ngi maa ngi dottin te bul wis maj suub ya daa buur tey yaa di seen buur yaa am kër buur lu xudu budul gis soo gisuloon daam kon tey nga def kaam yor jaasi lislaam sampal ko ay was baxdaad ba dem faas amoo fa yow maas faal yaa di abraas ku jaar ci yow gis matal nga say naal jabal nga fiy taal ceeñeer ya sarpaal bay gindi waa mbos tex tooli ñàq góob sim bi yàqoo sa baqa saytoo la am tos jofal te ruuroo jubal te dóoroo jam nga te diiroo jaw fan faratis wéeral sa xandoor tëddal te yandoor defar nga saw góor kenn mënu laa xas gàcce nga laa ma am ngay karaama nee naa jaraama kañ naa la cew na sun kajoor nga roofoo bawal nga tuufoo saf sappu suufu yaa yàkk say wasin tey gantu ceebo te til nu ceebu nee na ajiibo ku ñëw amu ko kajoor nga roofoo ba wal nga tuufoo saf sappu suufu yaa yàkk say wasin tey gantu ceebo te til nu ceebu nee na ajiibu ku ñëw amu ko mosu la muusu dootu la buusu géej nga duusoo ma siifu koo gisan tey lambi soo daan ak ku fi bi daan nee nañ la yaa daan bakkul amoo xas may bakk say ndam di fëggi junjum di sàjji ndëndëm di bakk tey gës bakkal la bakku mbër waa da ndax man ma bokk ci mbër yi nuy gisan sarax ma nag faal ma xamaxaal te dolli may taal ab lamp buy fés te def ma nag waay te dolli may gaay te def ma cëslaay may mbaar mu dul rës cofel gudul giim jox ma akum koom may dox ba xëy tiim rijaal yi daa gis xatmul ma yow baas kuy seenu fubraas bam far ni yoo jaas nga teggi say salli wa zallim xalam ni aadim maal akaarim barkel gi leen no salli wa zallim xalam ni aadim مع الأكارم برك الجلق نذو سل وسلم على ابن عاظم مع الأكارم برك الجلق نذو بانكك توجن دل وروري ورنفنه diis nan ko bamba mi xëy baddil sëriñ begere xiinal tawal dajalal ruujal jël saxalal guub jëri jannu jomb nga segere dépense dugub njëgu ceeb addiya ak dimbale moo tënk xel yi fegal ni dëkk bi dëgëre dépense dugub njëgu ceeb addiya ak dimbale moo tënk xel yi fegal ni dëkk bi dëgëre kii tëgrat ak jaxasoog bekkoor tawat yebu la ki tax sa doom yi di jooy kay wan ko say dëgëre tiit ak rët ak jaxasoog bekkortawan yebu la ki tax sa doom yi di jooy kay wan ko say degere yaa bar ci tëju far yaa mën ci soxla ku ne koo tin mu mucc ba am may yum jëgëri jëgëri lu war tinu ndax su njool mi doy nga nu raas yaa jot caxara sa kursi ma ñuy sigare ajjul nu gàmmi ngërëm duy saq yeeg jiba yi naataa ngi dil si fi nun barkeb sëriñ ndegere ajjul nu gàmmi ngërëm duy saq yeeg jiba yi naataa ngi dil si fi nun barkeb sëriñ ndegere